Eco TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko xamee nag wax taala gis nga ñu toogal tey su ngeen gisee ñu toog euh, comme ñi may dégg may wax toujours docteur Macoumba Diouf mu ngi nii meru Lat Mbengue directeur général horticulture ah, toog ak soxnaam madame Diouf Louis Senghor di sama jigéen moom tamit tey ñu seet si leen li ko waral nag mooy Pathé ñaax dëkk Loul Sessène moo koy tudde làmb saa yuñ ñu ko rite ba moom ñaari fan ci Loul Sessène yaa ngi dégg bi mooy nekk deuxième édition bi Luis nag moom yaakaar naa xam nañ ko ci làmb parce que <laughs> daan na tëgg ay làmb madame Senghor ca Italie est-ce que du moom laa njëkk nuyu sax taala wala docteur kan <laughs> ma njëkk nuyu madame kon madame maa ngi lay ziar. waaw ah, Babacar maa ngi lay dellu ziar. maa yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi ci jàmm. naka koor gi. sa koor gaa ngi fi rek mitti rek. Ah. xam nga koor ci waañ moo gën a mit moo taxit mitti na waaye waaw kooku Louis Maram Diouf docteur maa lay nuyu di la ziar maa lay fay Babacar di la sant encore di la gërëm mais surtout di la félicité bu baax ci liggéey bu am solo bi ngay def te waa ahlu làmb niñ ko mën a waxee ñëpp di ko bëgge di ci kontaan say reportage rek doy na wecci na làmb lu nit mën a war a xam ci làmb à part sëgg bëre yaa tax ba dara umpaytul ci làmb vraiment ñu ngi lay félicité ci loolu di ci félicité ma équipe Leewtoo TV yëpp di leen ndokkel léegi su ma ñëwee si sa diggante ak Pathé Niang ab benn bii nekk ñaareel édition bi diggante docteur Macoumba Diouf ak Pathé Niang. jërëjëf diggante docteur Macoumba Diouf ak Pathé Niang d'abord ak mbokk la ñoo bokk suñu kaame kaame ci séeréer mooy damane ñoo bokk suñu siin ñoo bokkit suñu xeet ñoo bokkit suñu làmb làmb nag wax dëgg yàlla Babacar xëjal nañ ci ñëpp ndax xam ñun séeréer dañ ci dañoo yaatu waaye nag suñu alal la donc parti nekk koo nga xam ne cosaan ndax làmb ci ñun cosaan la cosaan nag dafa am solo moo tax mu dem ba am valeur ba di créer ay millionnaire xaw naa mën a wax sax ne léeg-léeg milliardaire war ci léegi tey bu amagul it yaakaar naa ne dina ami milliardaire am ci. dafa doon cosaan waaye àndoon ak valeur àndoon ak nekk mm, euh, buntu njàmbaarte buntu xarañ buntu góorgóorlu buntu njàmbaar daal moom la woon kon loolu dañ ko bokk pate nag teg ma foo nga xam ne néew na ku mu fa teg te ñu xam ne mbaaxam la rek moo tax waaye ñun spécial ñu lu war a tax ba mu teg ñu fu mu tegul daanaka kenn ba ci làmb ji nga xam ne am naa ci ay mbër ni ma ko mën a waxee daanaka lu nekk dina ma ci jàppale pour que ñooñu yàlla defal leen ndam ñooñu yàlla dëgëral leen ñooñu yàlla suturaal leen ci li ñuy def kon Pathé vraiment kenn la ci ci man tax nag bi ñu yàlla boole ba léegi yemale boobu mu ma ñàkk a yemale ñeneen ñi tax làmb boo nga xam ne goxu siin yëpp lay wax du ma wax loolu seetaan rek ñëpp a ngi fàttaliku solo ak dayooy làmb boobu ancienne gloire yi di leen fa gis bu soobee yàlla seen kuréel mën nañ ko tuddee mooy ancienne gloire ñi nga xam ne ci côté siin te yaakaar nga ne nag ku cay manqué bariwul ndax siin boo fi génnee làmb ci làmb ay ancienne gloire li ciy des dina néew. doomu ndey mooy Eumeu le grand champion le vrai roi après Yékini donc euh, euh, ànd ak moom dem ca. ca dem ca làmb ca donc xam nga bés boobu euh, ku la ko tuddee mais yemaluwul ak ak kenn donc loolu daal bokk na ci li nga xam ne ci li ñu mën a wax bokk na ci li ñu boole ñun ak parti waaw léegi damay ñëw ci Louis Talla parce que li tax mooy kër moom yaakaar naa Ngoye est-ce que du ci foofu la bokk ah Ngoye du ci Loul Sessène la bokk. waaw Ngoye ak Loul Sessène presque benn la benn gox bi la léegi yàlla def yow nga dëkk Ngoye wala nga sax nga dëkk Loul Sessène sa borom kër nekk meeru Lat Mbengue waa gox bi nga bokk di ko delloowaat njukkal ak delloo njukkal yow mi mu takk yàlla def ngeen di sëy yàlla na sëy bi yàgg ci barke Yonent bi sallallahu alayhi loolu yow loo ci yëg en tant que soxna. man kontaan rek ndax euh, su ñëwee ba fa ma dëkk ñu koy jël sama borom kër di ko sargal loolu mbegte bu rëy la ci man kontaan naa ci paate lool nga xam ne itam sama frère la euh, ak waa dëkk ba yépp loolu seeseen seen doom laa aussi ndax ya fa laa yaroo ñoom yëpp xam nañ ma. door dafa nekk koo xam ne kenn la daal ci man. kenn la ci man mooy ndax boo gisee lii yëpp Loul Sessène sori na lool mais docteur dem na ba ginnaaw Loul Sessène ndax man donc loolu nekk na lu réer yi pour man docteur nekk koo xam ne nit ku baax la ci liggéeyam muy direction ba muy politique ba donc loolu Macky Sall bu ko xamul man mii xam naa ko xam naa ko ndax dama koy taajal ñu ne politique ba mu bàyyi fa bool ba ndax Macky Sall donc ma koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla jàppale defal ko lépp li nga xam ne moom la bëgg te yàlla na ko yàlla taxawu làq ko fa yàq àggul maa ngi koy ñaanal vraiment ndax kenn la daal kenn la ci biir góor ñi moom nit ku baax la waaw su ma la ne nit ku baax la rek xamal ne nit ku baax la. anciennes gloires yi association la boo xam ne man mii bokk naa ci waaw man maay seen jigéen ci biir anciennes gloires yi lan moo tax ma nekk seen jigéen mooy loolu démb la woon ñuy dem bëru ji suñu amul lu leen yóbbu sax damay takk saret ne leen yëg leen. ma yóbbu leen ah. donc loolu ak ay frèram la. ci li nga xam ne lu néew la ci as ma leen jàppale daal ndax boobu yoruma oto yoruma leneen mais nag sama papa amoon na fas bu rëy boo xam ne ku amul foo dugg rek dama koy takk saret ba na ko yëgal suñu demee itam du ma yem foofu dinaa dugg ci biir géew gi nag fecc bu mu saf boole ci nag may leen xaalis ndax loolu mooy suñu cosaan te loolu la ñu am loolu moo tax nag ñu jël ma boole ma ci biir ci biir loolu nag loolu nga xam ne ci biir laa bëgg sama jëkkër mënu ci ñàkk bokk moo tax ñu jël ko nag def ko parrain bi nga xam ne lépp lu ñu mën a def mooy suñu conseil daal moo tax ancien gloire yi maa ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla jàppale di ñaan autorité itam ñu jàppale leen parce que tànk tànk Sénégal la daal ndax mënuñu def dara te amul làmb ñu jàppale mbër yi ndax ëllëg ñu am lu ñu mën a def waaw loolu daal laa doon moom laa doon kii daal di waxaat docteur ne vraiment kontaan naa ci moom di ko ñaanal bés bi ñu fekki ko ak jàmm ak salaan yàlla may ko ci vraiment lépp lu mu bëgg ñu mën koo bégal mook ay mook ay gorom mën koo bégal yàlla rek a xam daal <laughs> léegi docteur dégg nga li Louis wax mais tamit dama ci ci ci li mu wax di nga ci dolli dara mais tamit dinaa ñëw feneen foo xam ne nii mooy tudd nga ko léegi muy Eumeu Sène mais balaa ngay dem ci Eumeu seen li mu wax moom. waaw li mu wax euh, moom moo moo moo baax rek ndax xam nga boo yoree kër gu mel ni këru homme politique ndax du ma ne politicien ndax man du ma politicien ci liggéey laa ne maanaam li may def ci politique bi moom lay def ci sama bureau waaw donc politique man dama ci liggéey maanaam damaa ñëw pour sukkali sama gox kon politique bi fi woon man gëwuma ko kon man homme politique au sens de homme de développement moom la foo nga nekk nitu mbooloo te yow gis nga ne fii këru ñëpp la loolu bi maa ngi ci sant sama boroom bind la ci man kon bu la yàlla boole woon nag ko nga xam ne bindoowul noonu jafe-jafe mën naa am waaye li ñuy def rek moom ma ko gën a bëgg du nit gën a bëgg nit du du yërmande du toppatoo du faale nit loolu yëpp moom ma ko gën a mën xam nga kon loolu sant yàlla la beneen bi cosaan man moom lay dund moom ma ci raw promotrice làmb la ni koy gis nii xanaa gars yi dañ ko ëpp jot rek waaye kuy def ay promotion xaw ma ay làmb ba Italie di jël ay mbër leen yóbbu ba Italie xam sax nu mu doon def ba gars yi daw waaw dama dem dikkaat xam nga boromam daanaka pour nga rawati ko du du yomb loolu mooy dem na ba ay miles yu bëri maanaam ay kilomètres yu bëri sore ko Sénégal te di dund cosaanam. léegi fi may jeexale sa diggante ak Eumeu Sène waaw jërëjëf Babacar sama digganteeg ëmma lu yàgg la mais cosaanam en fait cofeel la dëgg la ay mbokk lañu parce que kaame bi bokk boole boole nañu parce que xam nga ko ëmma am na wàll bu rëy ci côté way juróom ci séeréer bi donc yàgg naa koo xamit nag noonu du yomb waaye ba ñu ko bokkoo maanaam def ko mbokk cofeel rax ca lool loolu yàgg na mais bi ñu jaxasoo ak léegi daanaka boo dee seet peut-être ci ay juróomi at wala lu ko passé tuuti dem juróom-ñaar ci la ci la ci la suñu jaxasoo am mu ngi jóge it nag ci li ma gëm mooy yàlla moo feeñal foofu rek dëggu gu suñu cofeel ci moom dëggu woon ndax leneen làmb cosaan respecté ko mën ko doon mbër ci mën làmb doon mbër ci ñeme vraiment doon mbër ci li tax ñuy wax ni ne mbër la ay la yéen boo génnee sama goro bu baax bi nga xam ne kenn du moom muy ni le champion de tous les temps vraiment mënoo fay teg keneen ku dul ëmb ñeneen ñëpp nag am na ñu mérite parce que man làmb lay nooy daf ma neex mais wax dëgg yàlla deuxième la ñu wala troisième wala énième ci ginnaaw ëmb. non ay la yéen parce que ama làmb ci cosaan lamb simple la mokkal d'abord dara tax bi ñuy def lutte gréco championnat def gi ñu doon def yëpp. Eumeu non seulement da ciy bokk ci sélection yëpp mais Eumeu du ñëw fii te indul ay ay médailles donc loolu loolu teg tegtal la muy benn ñaar constance bi ci ay ndam ak ci di def jaloore mais yow yaa ngi fàttaliku bëri ama Sène ak Gris Bordeaux mais loolu Babacar loolu yéeme na loolu mënoo ko fekk. méngale benn combat ci Sénégal bañ naan làmb ba tey ci champion yu mag ya paaya yal yàlla yërëm leen ci ñi fi génn yal yàlla xëj gën a xëj fan seeni fan ci ñi fi des champion yu mag yu njëkk yëpp ba ci jamono moom làmb jooju taarix la ñii dañ koy njëwant ba léegi mu wëlbatiku daan mais kooku référence ci ci njàmbaar te loolu ñu ko soxla ci ci ci ci non ci ci mbër moo ci jiitu mais mbër muy ragal buy boobu mu toll nii indi ma mais ñemewut ko kenn mënu koo tuddee mbar beneen bi mooy mën nga am doole mën nga ñeme mais mbër aussi mooy da ngay xam luy technique bu mbër da ngay jàng mbër da ngay jàng bëre daal da ngay jàng bëre ama dafa jàng bëri moo tax ma ne la te nag daanaka du ñu ay euh, ay maas en tout cas Yékini moo ko mag pour man génération bi tegu ci moom la Yékini sama goro la sama mbokk la donc à part ko ak bëgg ko ak sopp ko ngir mbokk gi quand même Yékini li mu fi def vraiment defati ko fi du yomb mais euh, bu dee am na daal koo nga xam ne tey moo ma satisfaire ci biir mbokk gi à la fois comme Yékini ak ci làmb ji ak mbégte mu ma am ma koy noyee vraiment amu seen la donc lu muy def ma la see jiital ci lu ma ko woo mu ñëw maa lay fàttali ne bi muy jël roi des arènes lat mee nga la mujj ñëw wax nga ko da war a wax ci kaw. waaw non loolu fa la ma fekk juróom moo yaxee jub yi ki ni ñoo ànd defe naa boobu combat li ci desoon ma woon un mois diggante ak Bombardier wax nga wax ji Babacar yow xam nga làmb yaa ma ko gën a xam xam nga luy lu doon bëre ak Bombardier loolu dul combat combat amul mu am lu mu waroon ci période boobu lu mu waroon a prouver kon xanaa carrière am war na koo ñor kon xanaa ñor na ko mais ama génn ci période boobu bi mu ñëwee du ma la bu champion wu mag nee na ma effectivement moom bi mu déggee ne ama ñëw na fa nee na moom dafa jaaxle champion làmb laa wax période boobu des woon un mois mais loolu lu mu tekki mooy am na fu ma teg si taxaw ca donc loolu daal diggante bu sori euh, Babacar moo ko mën a indi moo tax nee na lu ma nekk ma nga ca kon ku ñëwul lu seeseen rate nga parce que xam nga affaire yi day am euh, euh, démonstration xaw ma répétition bàkk bi nee na Loul Sessène la ko njëkk répété. waaw waaw donc xam nga xam ku koy rate mais xam naa ne Leewtoo TV moom du ko du ko rate waaw donc loolu sénégalais maa ngi di wax ne ak waa ahlu làmb ku rate Loul Sessène rate nga lépp. mais mukk Modou Lo Modou Lo lay bëreel le docteur wax nga li ci ëmb yëpp waaye itam daa mel ni ki muy bëreel ku la daanam la mu mën a tënkal ci Modou Lo ci lu gàtt. waaw Modou moom vraiment euh, mënuma ci sori ku ko sopp la waaw loolu moom c'est la c'est la vérité parce que nag xale bu am fulla la bu am fayda bu bëgg boppam bu professionnel maanaam bu respecté li muy def te loolu aussi dafa am solo wax naa la lu mel noonu ci ëmma man loolu dama ko bëgg ci nit man xaw ma defantu man dem ba jeex lu ma nekk maa nga ca vraiment lu ma nekkul nekkuma ca te loolu dama ko bëgg ci nit te loolu daje na ci moodu te ndaw la mais ñeme na aussi xam nga Modou fi mu yegg gabareem yóbbu ko fa jom ak fit moo ko fa yóbbu kon xam nga ci ay soppee Modou laa bokk mais nag xam nga suppu kànja moo ma gënal ceeb. loo ci man ay yoon lépp a baax ndax bu ci nekk di nga suur te mu dina njëriñ kon daal moom la bëre bu mu bëre en général Modou te bëriwul ak ëmma moom lay faral. léegi damay dagg foofu taal daa ma fiy dagg parce que kër gi daa mel ni. maanaam am na fi cër de wala lu ne la dem la dëgg da amu fi cër. <laughs> ah yee kon yaay la fi la dëgg de am. loolu de am na. Lac de Guiers moom. <laughs> yow sax loo bokk ak Lac de de avant tout. yaayu Lac de dafa nekk sama bàjjen sama bàjjen la ndax boo déggee man la bàjjen la boo xamee boo nekkoon séeréer dangay xam lu ñuy wax feejoor sama papa feejoor la nekk nag sama jigéenu pap dëkk Mbodiène. papa yaayu Lac. nekk koo xam ne nel na ko yàlla yërëm koo xam ne daf ma soppoon lool bëgg ma am fum ma teg ba lépp luy sama soxla rek du ma te doon du xam ko am na daal fu ma fete woon fu rëy fu rëy rëy rëy rëy donc loolu famille bi yépp xam ko yàlla dogal lu mu dogal kon maa fi desal lakk